sëñ bi Modou Mboup ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay euh, sëñ Gomis. yow yaay secretaire général bu mouvement des entreprises du Sénégal kuréel googu kon di amal alxames gi ñaar fukk ak ñetteelub ndajeem bi ñu duppee assise euh, économique euh, ca King fat Palace wax ñu lan mooy assise du MEDES. xam nga sëñ Gomis le MEDES. ñu ngi ko defar ñu ngi ko sos. exactement à l'an 2000. Hmm. booba ak léegi ñaar fukki at la ak ñeent. man yi ñëw suba ak jàmm allah soobee suñ borom mooy nekk vingt troisième session. Hmm. assises donc ñaar fukki ak juróom yoon at mu nekk ñu def ko. Hmm. assises nag dafay nekk euh, occasion boo xam ne at mu nekk dañuy dajaloo suñu dajaloo xool suñu économie. xool économie sénégalaise bi naka lay doxee xool naka lay tëddee xool li ci dox xool li ñu jubanti xool loolu yëpp càmbar ko donc def ay proposition proposition xam ne li ko tax a jóg mooy rek euh, gën a defar gën a yaxalal gën a am doole ak gën a may doole puissance donc suñu suñu suñu économie donc ça fait trois ans ñu koy ñu koy ñu koy def donc mooy bonne planification ci moom solo euh, euh, weer woo mbir ne gouvernement bees dañ ko am mm-hmm. boobaak léegi ñaari weer la ak ak ak lu topp ah gouvernement bees bu ñëw mu wax ay mébétam wax ay yéenam ci économie yéene bi nag liñ ci gën a ñun soxla ñun secteur privé mooy nee na dañoo bëgg sukkandiku secteur privé national sénégalais pour développer Sénégal pour développer notre kon naa ba fi loxo société privée sénégalais pour que ensemble ñu ànd def économie bu xam ne dafay dëgër boo xam ne sénégalais yi ñoo koy dominer su ne sénégalais yi en tout cas li ci ëpp si njëriñ ak ci liggéey ñoom lañ koy lañ koy ñoom lañ ko séntu naturellement ñu xamal leen ñun tey loolu rek la ñuy xaar. Mhm. li xaar moom mooy ànd ak gannaaw fu mën di nekk pour liggéey Sénégal. ñan la ñuy xaar ci ndaje bi. ndaje bi nag ñu ngi ciy xaar ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc ci économie ñuy jàngale université ñoo xam ne dañuy liggéey ci économie di bis bu nekk ñoo xam ne dañuy nekk ay chefu entreprise maanaam yore seen entreprise ci liggéey euh, ñoo xam ne ñu ngi ci ci banque yu mag yi donc di liggéey ak di financer économie ñi nga euh, xam ne aussi ñi ngi nekk ci dans le domaine de l'innovation technologique pour accompagner entreprises yooyu pour gën a yokk seen xare donc lépp ñoo ñëpp ñu leen di xaar ci rajo boobu pour thème bu nekk bu ñu koy waxee ku nekk joxe sa sa xalaat ku nekk euh, joxe sa sa gis-gis ñu mën a boole gis-gis yi nga xam ne jàpp nañu ñëpp d'accord nañ ci donc ñu tënk ko ci document ñu woowee rapport daal di ko jébbal gouvernement du Sénégal que ñun day secteur privé sénégalais war ay économiste war nañu ay spécialiste indi nañu aussi suñu xam-xam parce que biir économie bi investir bi ñu paree nag bii rapport la def rapport bi nag li ci def ci biir li ñu ci tënk moom mooy càmbar suñu économie xool li ci dëgër xool li ci oyof xool li ñu war a jooyanti def ay proposition pour jëm kanam. Hmm. donc ñu jox gouvernement Sénégal te it pare aussi jox ko rek nga jox ko pare gunge ko nag accompagner ko soutenir ko. Hmm. ndax état boobu dina am ñu ko teewal ci ndaje bi tamit. waaw état bi dana ko am ndax euh, état bi te ñoom ñoom dañ koy xaar. Hmm. ndax daanaka bii mooy seen premier ndaje bu mu am ak société privée sénégalais am nañu ay réunion de prise de contact mais réunion boo xam ne dañuy toog wax économie wax économie réew xool question. ni ni muy ni muy doxee xool question économie numérique yi xool question digitalisation Sénégal bi nga xam ne moom nañu bëgg a fa fan fan lañ koy jaare naturellement bii réunion rek mooy réunion bi ci njëkk nga xam ne patronat Sénégal ñu ngi koy def ak gouvernement du Sénégal kooku MEDES moo ko organisé donc réunion bi ba am importance parce que lu am solo dina ci génn ci war a génn yëpp xam naa ne su réunion passé président MEDES président Mbagnick Diop donc ni mu koy def ak mu nekk donc dana woo journaliste yi wax ak ñoom tënkal leen li nga xam ne moo jëlee moo jóge ci rajo moom. ñu gis ni. li ngeen ci taamu fas yéene ko waxtaanee bokk na ci nu ñuy sukkalee li ñu duppee économie endogène bu Sénégal lan la ñu mën a dégg ci loolu ak lu tax ngeen taamu bi le thème. xam nga économie endogène. soo gisee ñu dëgëral ko. teg suñu baram joxuñ ko. dañoo seetlu ne économie mën naa développer am croissance bu baax PIB bi mën na yokk mais soo xoolee askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi mën nañu bañ a ci loolu or nag li tax a jóg économie ak développement moom mooy d'abord faj soxla nit ñi faj seen soxla ci njàng mi faj seen soxla ci médecine bi faj seen soxla ci lekk gi faj seen soxla ci environnement bi faj seen soxla ci école bi extra expérimentale hmm. su fekkee ne yow am nga croissance te boobu croissance jurul loolu pour askan wi boobu croissance c'est une croissance qui n'est pas de qualité hmm. ñu seetlu ne lu tax loolu nag dëkk yu bëree bëri ba dina am croissance waaye soo xoolee croissance ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ko créé maanaam ñu ko jur dafay xaalis boo xam ne dëkkul ci réew ma wala muy nit ñoo xam ne dëkkuñ ci réew ma wala muy xaalis boo xam ne des ci réew ma donc suñ ko liggéey ba pare am ci bénéfice dañ ko jël génn ko réew ma donc dafa des comme dafa des nag du am jeexital ci ci waa réew ñu bëgg nag croissance boo xam ne ak économie boo xam ne waa réew mi ñoo koy ñànk ñoo koy jiite ba lépp lu yëpp des ci biir réew mi mën a jëriñ euh, waa réew mi loolu la ñuy wax économie endogène maanaam économie boo xam ne dafa wëlbatiku jublu askan wi jublu waa réew mi wala muy jublu donc euh, étra étranger. loolu mooy euh, solo économie endogène mooy li ko tax a jóg moom mooy li gën euh, ñoŋal li gën jubal li gën a dëgëral dunduk waa ré waa économie mën na de mën naa am croissance te nag croissance boobu nag bu jëriñ waa réew ma suñu xoolee Sénégal am nañ benn faiblesse ñun privé bi xam nañ ko ndax soo xoolee les marchés publics mais marché yi nga xam ne état bi moo koy joxe marché public yi soo xoolee li nga xam ne entreprise sénégalaise yi ñoo ko gagné dafa néew par rapport ak volume marché public yi hmm. donc ay at ngi nii ñu ngi koy jooy di ko ñaxtu di demander état Sénégal pour ñu yokk ci marché public yi la part réservée donc euh, donc à l'entreprise euh, sénégalaise maanaam ñu def patriotisme économique def préférence nationale maanaam sama bopp ma la gënal bañ naa la dëgëral hmm. d' abord suñu entreprise yi jàppale leen d' abord la ñuy jàppale keneen te lépp loo xam ne entreprise sénégalaise mën na koo liggéey mën na koo def am na moyen technique yi am na moyen financier pour def ko kooku ñu jéem ko jox entreprise euh, sénégalaise bi lañ jox koo xam ne du entreprise sénégalaise Mhm. donc euh, loolu moo mën indi développement endogène ci réew moo tax effectivement ci suñu baaraam teg ci loolu ne kat développement endogène bi ci woote gouvernement bees bi président euh, Bassirou Diomaye Faye naturellement ñun ànd nañ ci loolu ànd nañ ci le fait que nañ bénéfice nañ profité dëgëral donc la notion de patriotisme euh, national économique la notion donc de préférence euh, euh, nationale. Hmm. Euh, kon mën nañ ci dégg ni li ñu xamoon modèle économique ci Sénégal nga xamante ne lu bari dañ ciy sukkandikoo ci liy jógee biti réew loolu tey war nañu xalaat weesu ko. waa war nañu xalaat en tout cas wàññi lool suñu dépendance. Hmm. war nañu xalaat ko mën naa am suñu nekk ni benn réew mënul dem moom rek te doo doo jëflante ak yeneen réew yi waaye nag li nga jëflante ak yeneen réew aussi na bàyyi xel. li nga xam ne moom mooy sa sa sa sa sa intérêt réew ba lépp loo xam ne loo man la lépp loo xam ne loo attan la nga defee ko sa bañ hmm. ba ba ba ba ko jox keneen. Hmm. lépp loo xam ne mën ko am ci réew mën ko ko mën ko faa bay nga bañ ko jiggaani di ko di ko wuti feneen. Hmm. lépp loo xam ne li ñu mën a liggéey la liggéeyloo ko doomu réew ma suñu jëriñu liggéey boobu loolu daal mooy économie endogène comme nag goy na Sénégal nee ci loolu la taxaw. léegi donc naturellement te loolu ñun ñu ànd ci mu suñu intérêt intérêt réew mi yëpp moo tax foofu ñun en tout cas dañ koy soutenir ci démarche boobu. ndaje bi nag yàgg na at mu yàlla sàkk bi mu war a nekk ñaar fukk ak ñetteel bi yoon. ngeen di ko amal ban particularité la am bi yoon ban importance tamit ci nguur gu bees gi nga xamante ne mu ngi soog a ñëw. li am importance. moom mooy dafa am mois rek deux mois trois mois après nguur donc muy occasion pour ñun. pour dajaloo société privée nationale pour wax nguur gas gi ne ko déglu nañ leen dégg nañ dégg nañ it li nga xam ne mooy seen mébét ci réew mi dégg nañ seen gis-gis seen gis-gis ci côté yu bari méngoo na ak suñu gis-gis comme nag méngoo na ñun duñ toll di leen xool ñun tam dañuy dañuy bay suñu wàll ci waar kon nag daañu dajaloo ñun tam xool seen gis-gis xool suñ gis-gis def ay proposition jox leen ko pour ndax lu kenn mën ko dàq ndax mën naa am ñun ñëpp suñu coo xalaat yi ah, dana gën a baax pour euh, pour réew donc loolu moom moo suñu point de départ euh, bi nga xam ne assises yi ren ci lay ci lay moom mooy d'abord accompagner le nouveau gouvernement dans sa mission et dans sa volonté de faire du Sénégal donc un pays développé un pays prospère au service des nationaux d'abord ensuite de tout ce qui vit parmi nous et donc loolu mooy suñu suñu suñu bëgg-bëgg. Hmm. léegi nag su fekkee ne pare nañ suñu liggéey ba pare. Hmm. ba tënk ci ci document ci bataaxal yi nga xam ne ñun moom lañ jàpp na moo gën ci réew mi. Hmm. naturellement dinañ ko jébbal gouvernement du Sénégal. ndax ñoom ñoo am responsabilité exécuter politique politique économique bi dinañ ko jébbal ba pare nag gunge leen ci gunge leen ci exécution boobu dinañ ko jox jébbal bàyyi leen gunge leen ci dinañ ko jébbal aussi ñi nga xam ne ñooy te privé national suñu naataangoo ñun. lu hmm. xamal ni kat gouvernement bi li mu bëggoon def wax nañ ñu ko li ci ëpp ci ànd nañ ci pour bu lii ànd nañ ci ci lépp ànd nañ ci ànd ci ànd moo tax dañ cee xalaat réfléchir ci kenn ci ay proposition donc pour jox ko gouvernement bi ne ñu noonu xool leen ciy def donc loolu loolu si si si ñun la danañ ànd danañ seet aussi les nos partenaires. Hmm. xamal leen kat. politique boo xam ne politique bu bees hmm. en tout cas le gouvernement bi nata a tëgg ci ci ci Sénégal naturellement yéen itam na ngeen euh, fexe ba adapté wu ci boobu politique hmm. jàppale gouvernement bi donc ñun suñu liggéey mooy d'abord accompagner le gouvernement dans la réflexion ensuite l'accompagner dans l'investissement jël suñu alal investir ko ci biir ci ci ci biir Sénégal hmm. koom-koomu koom-koomu euh, réew mi ba pare aussi invité suñu partenaires nekk biir réew mi ak bitim réew mi ñoom aussi ñu jàppale gouvernement du Sénégal pour que politique bu ñu sumb ni hmm. di politique boo xam ne su paree dana jëriñ réew mi eh bien mu mën a am dans de très bonnes conditions au bénéfice de l'ensemble des Sénégalais. Hmm. kon daal bu ngeen ci noppee xalaat yi bu fekkente ne jëfeeñu ko ci nguur gi la. ah ñu daal daañu ci def li ci war a def yëpp. Hmm. lépp loo xam ne la aju. da daañ taxaw góorgóorlu ba loolu bañ a am daaw lu ci lu ci manqué nguur gi it xam ne ñoo bokk liggéey bi aussi lépp loo xam ne jàpp nañ ne ñun su leen ci jàppalee ñoom seen ndox gën a bar daan nañ ci jàppale pour pour ndox a bar. Hmm. yow yaay secrétaire général bu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES mi war a amal tey jii ñaar fukk ak ñetteelu session assise économique ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ bi Modou Mboup. c'est moi qui vous remercie euh, monsieur Gomis. jërëjëf monsieur Gomis. jërëjëf.